Lamine waaw gis nga ay célébrité yoo xam ne yu jigéen yu ñuy yu bëri mhm. gisaan naa ay góor média est-ce que bokk leen ci hmm? bëri ñu am jabar <laughs> média moom ñu bëri nañ am jabar ah? mañang prépare leen média bi ñu bëri ran nañ am ay jabar maa ngi maa ngi waaj jël leen loolu jox naa ci média bi beneen ndey su am na célébrité bu ñuy takk am na góor gu siiw goo xam ne mhm. moo ngi ci YouTube yi ñëpp xam nañ ko mhm. dana takk jabar jàpp leen bind leen Hmm. yàggatul si biir 23 bi dina takk jabar hmm. yàggatul allo senegal waaj leen waaj leen góor goo xam ne dina am jabar koo xam ne masta am jabar hmm. mais ci biir réseau yi la ne dangeen ko gis dafa ku góor koo xam ne bu nit ñi xam ci réew mi euh, mu ngi am jabar kooku dangeen ko gis ci weer bi ñëw ku siiw la burul ku kuy feeñ ci réseau yi dina ma jaaxal wala muy animateur tele wala mu doon koo xam ne ku nit ñi xam la Euh, dana takk jabar joo xam ne buy ñëw bi dana siiw. kii jànq la bu siiw ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. ah yoon nag dina dina am solo. tamit ba ci euh, gis nga mariage yi am. waaw waaw waaw mariage mariage yëpp waxoon naa la. weer bi dina bëriwaat ay mariage mois bu bëri ay mariage la si célébrité yi. waaw Lamine yi la ma waxoon. fees na ah. dal ñëpp mari ñu bëri mari nañ. Ah, mm-hmm. am na beneen kuy takkaat jabar ku siiw. bii dana bii nag du bëri coow. Ah. ñëpp ciy bëgg. xëy nag mooy beneen bi. waaw am na maanaam nit ku siiw koo xam ne danañ ko takkaate du yàgg. dinañ ko takk waaw du yàgg. sëy mësta sëy. mësta sëy moom dañ koy takk takku bees tàq te bu amee ñëpp danañ ko yéene ndax ku baax la comme tey ni ma waxee woon ci euh, euh, théâtre kat bu siiw bi Adja. Adja waaw kii itam nit ku ñëpp xam nañ. ku ñëpp bëgg la ku ñëpp bëgg la. Mm-hmm. ku siiw la dinañ ko takk am na ci. beneen buy amaat ma Adiouza maa wax oloo xamoon. Adiouza yaa la woon maa la wax oloo xamoon. bii nga ko waxee woon. mooy mariage beneen. ba. du man. Lamine. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi.